Hmm, nekkoon naa le comité de gestion bi mais ay jafe-jafe ak ay irrégularités moo tax ma génn ci te buñ nous liggéey ay 65 millions ñun jàpp nañu ëpp triplé na parce que boo minimum minimum minimum chaque jour daral bi dana dugal 400 000. loolu bu ngeen ko calculer 23 mois ngeen xool lu mu leen war a jox sans calculer nag yeneen yeneen xaalis yoo xam ne yi mi ngi génn si biir yu bokkut ak oto nag yi parce que nag buy génn day fay ba pare encore ndox mi aussi c'est pareil ñun léegi dañoo jaaxle jaaxle bi mooy ñun ñi nga xam ne ñi dañ si doon mën a gis dara nekkoon si bureau bi nekkoon si ay dirigeants par la complicité du su préfet dañ ñoo écarté booba la ñu xam ne mënuñoo defar parce que ñun taxu taxuñoo jóg pour nekk si dara déedéet pour affaire bi dox la secteur yi nekkoon ci Sénégal yëpp xam ngeen secteur élevage moo gën a bëri ay jafe-jafe. kon nag bu ñu amee njiit yoo xam ne dañuy ñëw di gën a jaxase kon nga xam ne ñun jaaxle nañu. premier euh, euh, euh, ki nga xam ne moo jiite mbir mi sous-préfet la nañ ko wax nag te dee comme boo waxee mu ne daf lay rey daf lay tëj preuve ngi nii lettre bi nga xam ne man maa ko ko adressé le 16 3e mois 2021 Bob comité bi lan wax monsieur le sous-préfet on ne comprend pas du fait de rendre compte d'une gestion et de sélectionner à qui rendre compte aller jusqu'à écarter le comité directeur composé de 50 délégués et aussi écarter le comité de gestion composé de 6 personnes, ça c'est trop sélectif. Et prenez en compte, ce comité du fait de sa mauvaise gestion veut brouiller les fils pour s'en sortir. Et d'ailleurs, entre eux, ils ont des conflits financiers le dossier est en enrôlement à la justice. Donc, monsieur le sous-préfet, il faut être très prudent. Il nous faut une cohésion sociale indépendante et pour en arriver à tel point, il nous faut de la clarté. Lettre Bagnini, Mingini signature Kassé Mosenek, arrivé le 16 mars 2021 sous le numéro 286. L'île l'air n'a Kon nak avant ni di tok le sous-préfet de loxom ils ont dit, ñu am 65 millions Ce n'est pas vrai ñun fii minimum minimum minimum nous am chaque jour 20 à 30 camions par jour Nous bu am 60 têtes. calculer vous allez faire le, cumul vous allez savoir que les nañ fi lu ëpp loolu mais nous, ku ñu gën a nasaxal mooy sous fee nañ ko waxta de parce que dañuy jaar si naïveté comité directeur bi parce que man lu ma siy gis tuuti si mbind du ñoom xamuñ si dara dañuy indi signé loo na rek ñu signé ñuy àtte loo xam ne li xamuñ si dara sous préfet di si teg bëtëm en plus saa ñuy rendre compte mu sélectionné leen fii génn leen fii yóbbu leen fële si ay bureau wala yeneen ay EDK di fa rendre ñoo xam ne ñooñu rek ñooñu rek ñoo ko si neex loolu laa ko doon alerté avant ñoom ñuy toog. ba ñu toogee loolu la ñuy doxal mi ngi si teg bëtam alors que si si lettre si si si si si organisation bi mi ngi nii ah, ah, dans l' article trois moom moo ne pré euh, euh, bu ñuy bu ñuy rendre compte nañ ko def fi nga xam ne waa fora yëpp danañ teewe mi ngi nii moom moo ko binda si règlement intérieur bi kon nag bu toogee waa fora yëpp dañoo xet EDK waa fooraa dañoo xet si bureau bee te ñu yore suñu mbaar bi nga xamné ne lañuy réño mané buñ nax nit ñi Macky Sall dañ koy nax dañ koy nax ñi ñu tek fi mom ak ministèreum de l'intérieur liñ koy wax amut ñom daal bu leen na ando ak yow man di anduma ak ñom waaw parce que ku doxal yoon mëno fexé Moussa ak waane ba ma toppa sa gannaaw man nga ma ray rek wala nga ma comme mom limuy wax nañ tagaat mbir mi siw yoon ñi ngi fi man waxuma la sax loolu rek mais même magasin yi xam ne daral gi moo ko moomoon bu état bi indee rakkal ñu dem def ko si dañ ko accaparé wu par ñaari nit ñetti nit jël def si seen i tur dégg nga tabaxaat ko di si def seen magasin di jaay ah lu ñu bëgg mooy dañu teg ko si yoon sëñ bi lu ñëpp bokk lu ñëpp lu ñëpp bokk dañ koy jaaral yoon dañ koy leeral boo ko leeralul yëngu-yëngu day am yàpp wii seer fii kenn teguñu ko lu muy ñoom parce que nag bu fi wàcc nag bu fi wàcc minimum minimum minimum gannaaw li ngay fay mairie ak yëpp da fay encore dix mille francs de plus. waaw ma ne ka waaw leen trente voto chaque oto waaw mais mënuñ koo wax parce que mais xam na lu jaaduwul moom. kon ëpp na loolu daal ngeen bëgg a wax ëpp fuuf. du ëpp na ko fuuf. yaa ngi oh, nee nañu nee nañu waaw nañu. frais nañ fii cinquante huit millions. waaye sëñ bi daral gaa ngi nii nañ ñu wan fuñ ko fi def ñun amuñu ay toilettes ay toilettes si boppam mu ñu ko fe am ndox aussi c'est pareil nag mi ngi fay trois mille francs par par mois te boo demee si àll bi. àll bi moo gën a ñàkk ndox waaye foofa nag deux cent franc lay fay par mois ah yëpp ak ndëngate kese sëñ bi nañ teg mbir mu si yoon Macky Sall dañ koy nax sous-préfet yi mu teg fii jubaluñu damaa xamul nag moom ban intérêt am man damaa xamul comme boo ko nee sous-préfet moytul pax mu ngi ni mu ne la eh, dama lay tëj numéro mi ngi nii moom moo ma woo heureusement commandant bi fi nekkoon moom xam na ma bu baax moom bam mu ko wooyee pour na ma ñëw jàpp si mu woo ma mu ne ma xanaa dangaa wax a kilifa gi ma ne ban kilifa mu ne sous préfet ma ne sa kilifa waaye du suma kilifa mu ne lu tax ma ne ko jubut ah bu buñ loolu président bi dana ko wax président bi ak délégation bii nga xam ne ñu ñoo nekkandoo décision boobu ñoom ñoo koy jël waaye man loolu kay man bu doon suñ cañ-cañ tey tey jii duñu fanaan si fii ñoom ñoom comité de gestion bi ah ñun dañoo am gàcce sax ñun lii gàcce la si ñun parce que lii bañ koy taxawal man bokk naa si mbër yu doon xeex pour affaire bi jaar yoon ay woote yi mosu fee am ñu ñoo taxaw di xeex di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc lettre ba xam ne si ministère de la justice mi ngi nii di yéeg di wàcc bañ mujjee di def ay élection par deux ans fi nga xamee ne sous préfet bi jubul kay li nga xam ne bi nattam deux ans la woon yow nga jàpp nga def ko cinq ans ñun dañoo xamul moom moom ban muus moo ko piqué ba moom muy dugg si tuuxi duuna yi ban ban ban procès fan fan bañ commencé ba léegi lan anam am nañu projet defar seeni poos boobu mooy projet bi defar seeni poos ñun gàcce la ñu am ñi nga xam ne ñun feeñoon nañ si di xeex di xeex bañ yàpp ne affaire bi tegu na si yoon sous-préfet yi fi jaar yëpp ñëw na saxal ko